asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen nuyu di leen ziar di leen wax ne ah ñu ngi waajal tabaski bi ñu ngi ñaan yàlla wax dëgg neex yàlla yàlla yombal lépp yombal ko borom kër yi yombal ko ñëpp te yitam yàlla nangul ñu ko ndaxte fet la boo xam ne fet bu am doole la euh, kon nag yal nañu si yàlla yóbbu ak jàmm lépp luñ si jaamu yàlla yàlla nangu ko lépp luñ si ñaan yàlla nangu ko maa ngi ñaanal nag. sama abonné yek ak adina bi ak nit ñëpp nit ñi am jamm ak salam jamm ak salam ci lepp xaj surtout nak ci couple yi ci bir kër gi ci digënté yi yalla na yalla def ci jamm def ci tawfiq yalla yaatal xol yi yalla jubal ñu a ñu sam ñu def ci xol bi diiné def ci xol bi yermande def ci xol bi yiw ak set ak sel yalla mën nako yalla moy jubal yalla ñu yalla jubal ñu ñëpp may ñu am am bu yaatu ara ñu bopam sam ñu bopam tay indi len sa kër bu jëm ci walu buy buy nag dafa bëri ay secret yu si nekk dañ si jël ay yenn yi rek joxe ko am na si yoo xam ne nag dafa xaw a doy waar surtout lu demee ni si wàllu euh, mystique côté mystique surtout sax euh, ñi nga xam ne dañuy yàq ay diggante foofu la gën a gaawee moo leen wax rek na man duma ma mas a yàq ay diggante du ma ko mas yak luñ ko xam-xam-xam itam di ko mas def di ko mas defal kenn lool mo dama ko bëgg wax fi mu leer te képp kuma wona ma nangam nangam wax ko fi leer nak duma ko defal kenn duma dëddelé duma séparé bolé dal ak defar mun na ko te itam képp ku fi def nako ko sudul noonu jël secret yi ko def nako sudul ma ñaan na yalla ne képp ku nekk lepp lo fi jël di def te jitaloo si yalla wala wala tay nga def ko si nako sudul noonu bu mu sotti yalla bu mu antu kep ku jugna def ko pour rataxal pour defar pour lu neex yàlla pour loo xamante ni diggante boobu noonu jaamu yàlla la wala wala ay ñaan ñu sëy wala ñu bëgg a sëy loolu moom alhamdulilah da ngeen si koy def ngeen am si yool man tam ma am si tiyaaba waaye bu dul loolu rek nit ki bu ko defee neneen man mi ko joxe itam du si du ma si rëcc te bàkkaar dafa sew kon nag da leen jëfandikoo secret si lu neex yàlla euh, secret bi mooy mooy buy bi ngeen gis nii caggal buy gi lii boo demee ba si guy da nga koy gis muy yoore waaye nii nga ko war a fekkee da war a fekk maanaam mu xar mu xar si digg bi nii am ñaari parti nii nga ko war a fekkee nekku ne yow yaa ko war a xar boo boo ko jëlee nag ba pare am na ñaari am na gauche ak droite ñaari côté yaa xool côté bu la neexee yow bind sa tur si benn côté bi ak sa turu yaay beneen côté bi nga bind turu ki nga bëgg ak turu yaayam bu dee ay famille na nga bëgg a boolee nag bindal côté bii nit ñi beneen côté bi nga bind fi ñeneen ñi yaa ngi dégg bindal góor ñi fii bind jigéen ñi fii bu dee ñaar nii nga bëgg boole bindal turu kenn ki fii turu kenn ki feneen nga jël buum bu weex buum bu weex mooy buum yi nii rek buum yu weex yi nga eh, jàpp ko di ko mel ku koy lëmasee kii bi ku koy lëmasee buy bi nii di ko lëmas pour mu fermé daal pour mu tëju ngay ñaan sa soxla diggante li nga bëgg daal si diggante bi di ko ñaan di ko ñaan ba mu sës ba nga xam ne fees na su ko defee na nga jël buy bu noonu ni nga ko eh, lëmasee noonu di si ñaanal sa soxla après nga denc ko si néeg bi wala si kër gi wala foo xam ne daal danga nga fa mën a ranger ba kenn du ko gis nga bàyyi ko fa juróom-ñaari fan léegi juróom-ñetteeli fan bi muy euh, euh, huitième jour bi juróom-ñetteeli fan bi nag ngay jël li ngay gis si biir nii mooy buy bi buy bi si boppam moom ngay rocci génnee lépp daf ko jus daf ko jus bu neex nag boo xamante ne ni tey yow ak euh, ki nga bëggantee wala yow ak wala waa kër gi daal. ñi nga bëgg ñu ne si jàmm juboo nekk benn ñëpp nekk si jàmm moo nga koy def sax sa entreprise bi ngay liggéey gis ne nit ñi jubowuñ wala nit ñi ànduñ nga bëgg ñu ànd yàlla da mooy boolee yàlla nangu nag ba lépp mën a sotti su ko defee nga jël loolu noonu def ko ñi nga xam ne ñoom ñoom nga bëgg ñu juboo wala yow mi nga xam ne yaa bëgg jubool bëgg am ak jàmm bëgg a neexoo ak ki nga nekkal nga def ko ngeen naan ko yi ñaar te balaa nga koy naan boo si mënee jàng wal xeetu aleykum ma ba tamit nii wal xeetu boo jàng rek wal khatu aleykum ma wate mini bo jang rek nga nga tuddu sa tour ñaan ci li nga bëgg sa diggante ak moom ba juroom ñaari mat nga ëf ko ci jus bi ci ko dang koy ëf rek waaw bu ko defé nga nga nga nga tek ko yi ñaar ngeen ngeen naan ko amna yeneen yu ci yu ci am nak yo xamne ne ñu wara def la ndaxte xar xarit xarit bu ngeen gis nonu ñaari xarit yi amna na ñu koy defré itam ay morceau luñ koy def ci walu nobak ci walu wàllu digënté yu démé non lool mom dafa xawa ki waye ngeen yëm ci li rek ma jox leen lii ngeen def ko defal ko seen bopp dégg nga yomb na euh, am na ñoo xam ne dina facile si ñoom pour ñu mën ko wut. léegi wax nañ ne buy moom si boppam sax nga di ko naan rek dafa baax lépp lay defar si doomu aadama bi lépp sa lépp lay defar buy moom lépp lay defar si euh, si jëmmu doomu aadama chaque jour boo leen xëyee da leen ko naan ba loolu man maa leen ko conseillé chaque jour ut leen benn buy. ku bu ngeen ko amut man maa ko am boutique bi ma waxoon ne leen damay kii lépp lépp a ngi si biir ku nekk lu mu soxla rek na ma ko wax نخول نك لاني داف بوي ني امنا ايات اخرى ني كاي بولا يو خامي سي بولا نخي موم ديكو نان شاك جور بو خي بوكو مونول اي تام مي جافا سي ياو شاك جور بو خي داما سي بوديك ني جالي بوي ولا nga dem فوكو مونا امي nga am ko فوف شاك جور بو خي nga defal sa بوي بام باخ ولا nga defal ko سي غوديغي بو خي مو نياك جيتو سا بير والله لازم بوكاي def da nga gis da nga gis lima len wax ci walu wer ak ci walu lepp dal inshallah wa kon tay li ni la fasiron ne na lan ko andil baxé Euh, ngeen fas yéene koo def si lu neex yàlla si lu jub yàlla dafa leen si tawféex dafa leen si teysir dimbali leen si ba ngeen mën see am seen càkkutéef yàlla rataxal diggante yi yàlla def si diggante yi jàmm ñun nag ñun man de li ma mën mooy jox leen ay secret rek yàlla nag mooy dogal li si mën moom euh, li mu si mën naa ko def waaye li si des moom ñu dox ñu jox ko yàlla suñu borom kon yàlla yàlla yàlla mottali lépp si zaari si baatil asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.